rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidinaa wa mawlaanaa muhammadin il amiin wa alaa aalihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin noo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam di ñaan yàlla mu dooli ko xéewal akuk mucc moom akuk njabootam ak saxaabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam ba àddina tukki mbokk yi yàlla day wax ci alquran ne dundug àddina gi dafa mel ne ndox mu yàlla wàcce ci asamaan mu saxal gàncax gi gàncax gi naat lool waaye balaa yàgg rek mu mujj wow ba dee ba moxañoo ba doon pënd boo xam ne suuf si moo koy yóbbu mu wax ne mu teg ca ne alal ak njaboot ñooy taaru dundug àddina moom la di ñu gën bëgg ci àddina waaye nag mu ne jëf yu baax yi nga xam ne dañuy des bu ëllëgee yooyu ñoo gën te ñoo ëppal njariñ nit ki ñaari laay yooyu kon mbokk yi yàlla dañu ci leeralal dëgg-dëggi àddina mooy nuróole àddina akub taaram mu koy nuróoleeg suuf si bu ci ndox wàcce ba gàncax gi sax gàncax gi sax banaat waaye day jékki-jékki rek loolu lépp soppiku ba mujj doon am poñet mu doon lool ñax lay doon moom day mujj moñoxoo ba suuf si di ko tasaare mu nuy xamalit ne alal ak njaboot bokk na ci nit ñi gën a bëgg ci àddina si waaye mu xamal ne nag am na lu gën am ami àddina te mooy jëf yu baax yi nit kiy def yu koy jural ëllëg ab yool ak tuyaaba bu àllaaxira loolu moom la ñi xam ba xaaruun xaaruun ku nekkoon ak Seydina Muusa la yàlla may ko alal ju bari waaye mu beewoon jàpp ne moo may boppam alal ji mu am ña xamutoon di mébéta am lim am waaye ñaxam ñoom lii lañ xamoon ba tax ñu tontu ñooña ne leen na ngeen xam ne kat tuyaabay yàlla moo gën alal joo xam ne nit ki ak beew ko jural kon alal kese amul solo waaye di def lu baax loo xam ne bu ëllëgee nga am ci tuyaaba mooy li am solo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi nuy xamal ñàkk solo àddina ni mu ñàkk solo mu wax ne bu fekkoon ne àddina yàlla teg na ko jàppe na ko lu tolloog laafu yoo bu tolloon ne laafu yoo fa yàlla nee na kon yàlla du ci may ku ko gëmut guuxum ndox sax mooy kon daa amul solo ci moom bu doon lu am solo fa moom kon ñi ko gëmul du leen ci sédd dara dara dara te yàlla ñëpp lay sédd àddina ñi ko gëm ak ñi ko gëmut loolu nu wax kon ci alxuraan ak xadiis ak yeneen laay yu bare bari ci alxuraanul karim dañ ci xamee ne kon taaru àddina muy am ami àddina yi doonut lu ñu bañ diggaluñ nit ki itam mu bàyyi àddina bañ ko yittewoo loolu diglewuñ ko waaye li ñu bañ kay mooy nit ki jiital àddina ba sàggane àllaaxira waaye àddina am na luñ ci war a sàkku waaye nag waruñ koo àggale fenn fi ba mu doon suñu yitte jëpp ba nu sàggane àllaaxira loolu la yàlla di wax ne dangeen a jiital àddina loolu lañ leen di yedde dangeen ko jiital te àllaaxira moo gën moo gën a des itam àddina dañ fi jaar rek jàll àllaaxira nag fa la ñuy des kon lu war lu war a jaral mbokk yi ñuy xëccoo àddina di ko xëccoo def ko suñuy tëjëpp lu war a jar war a jaral lu war waral loolu te muy loo xam ne day jeex rek xanaa déggun li sëñ bu mag bi wax Cheikhu Xadim radiallahu anhu wa li mu wax ne ñi faatu lañ gën a gën a gën a bëgg mooy ñu delloo siwaat leen àddina rek lu mu gàtt gàtt gàtt bañ def fi lu baax loo xam ne buñ delluwaatee mu amal leen njariñ kon jëf ju baax dëgg-dëgg mooy li am njariñ waaye lu am ami àddina yi rek noo ngi ñaan yàlla mu defal ñëw àddina ko musal na ci sawara sa sàmmal na sunu ngëm ubbil nu bunti yiw yi soob nu ci ak njub mottali sunuy mébét may nu fanu gudd ak wér ak mujj gu rafet